mbokku téléspectateurs yi dellu si waat euh, ci seen émission wareef ci ñaareelu xaaj bi euh, Alaaji léegi bi may dem léegi dafa am paquet bu rëy bu ma la sànni fonk sa bopp fonk sa kàddu suñu nee nag fonk sa bopp fonk sa kàddu damay gëm ne fu mu nekk ni xanaa kenn fonkatul boppam ak ñiñ ko sañ a wax ndax bëri na nit koo xam ne mu ngi toog ak yow ñu koy owee kilifa wala bokk ku ànd ak lu ci mën a ne daal lam lay wax gëmu ci dara loolu noo ko mën a analyser waaw xam nga benn waaye daa ñëw ne Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dégg naa loo wax def ko. Mm. mu ne ka ko wax tooñ na ma. Mm. wax def yàlla rek ku man dëgg la waaye lu mën na mu lu jóge saw làmmañ dégg nga. Mm-hmm. wax. dëgg la. bari na ñuy wax. Mm. ndax yéene. waaye yeggale sama borom a ko moom. Mm-hmm. am na ñuy wax ngir fóbbu. ak mbaraan. te la ñuy mm-hmm. wax gëmuñu ci leen muy ñaari nar yi boo ko doon séddale benn bi du jar waaye benn bi du lamb. dëgg la. Euh, kilifa. Mm. du def loolu noonu. Mm. bu solee mbubbum baat ba. Mm. fu mu jaar jot ko tudd boobu. muy baatu kilifa. su solee mbubbum baat ba. waaw baat ba. baat ba baatu kilifa. baat la. Euh, dafa am loo xam ne li soo ko déggee. ñëpp xonet. li ci ëpp. ñu ci bari dañoo tiit tekki. waaye am ni duñu xonet ba dina tukki. du ñuy tiit ba dina tukki. Mm. dañoo ànd ak sunu borom te lu ñu def gëm nañu yàlla te yàllaay tax. dëgg la. loolu lu ñuy wax bu génnee si ñu làmmañ bu ñu dëral ñu tuddee ñu koy yëf. dëgg la am ñoo xam ne ñi it nag it. Mm. du ñu gàntu. waaye du ñu jëf. ñoo ñoo gëmul dara. du ñu gàntu waaye du ñu jëf. loolu gëmuñu. Mm-hmm. Euh, te it nag euh, soxna dëggan mm. damay faral di wax ni li ngay wax doomu aadama mbaa mu ñëw ci yow. yàllaa ko yebal muy mission. bul yàlla sant. ndax ba nay tukki. Mm. du fi jóg dëgg la dimbilin te du fi jóg dimbali du fi jóg. dëgg la. Eh, ki ngay bëgg dimbali nag te yàlla taa. Mm. la nga koy wax seet si digganteeg sa borom. Mm. waaye bul seet na mu dikkeeg na ma mel. dëgg la. te kaay di nga mës a fégal sa morom ñëw. dëgg la laaj. ñaar rekk tax ngay fégal muy leen. la nga yoroon mën naa dem ba jeex takk baa nga bàyyi fi dugg ci biir suuf te doo ko yóbbu. dëgg la. ki ñëw nag di la diis. yett koy tax a jóg rek. muy yaakaar. Mm-hmm. li indi ci jigéen war a sëy ci biir kër mm. mm-hmm. ba ko ñaareel mm. mooy yàllaa ko yónni mm. ba ko ñetteel fekk na ko fe yett yooyu nag boo leen boole yëpp xam ne sama borom rek a tax lu génne sa làmmañ wi di ko jëf beneen leen ni Serigne Cheikh Mbacke Gaye defaat ma dégg naa doo wax mu ne ka wax loolu tooñ na ma am na ñu ma waxal waaye am na ñu may waxal na kon ñu ma waxal waaye am na ñu may wax dëgg la ku dul wax amul ku dul jëfu amul dëgg la réew mi nag ren rek koy nekk nekk. Hmm. sans dafa bii après nga dellu si. waaw kay bàyyi. Hmm. dafa séddale. Hmm. ni mu séddalee it nag. xam na ko. ndax du def mukk lu mu xamul. déedéet du juum moom. du juum it du jaawale moom. du jaawale teg déedéet zul jalaali wal ikraam soxna dëggan. borom wërsëg yi am na ñoo xëy du ñu nelaw. du ñu yàndoor. ngir mission bi leen yàlla dénk fu ñu jaar dox ko. dëgg la am na ñoo xëy dañuy xarat tëj tëju. te lu ñu wax duñ ko jëf. Mm. du jeex teg ci ñoo ñoo moom loola. Mm. waaye ñuy jëf te yàlla tax. Mm. te bu ñu waxee respect ko. moom ñu ci thème bi. Mm-hmm. waaye dama la ne. xam sa bopp. bëgg sa bopp. fonk sa bopp. fonk sa bopp. néew na ñaare ku mu nekk ci yow ngay def lu ñu lay yedde. dëgg la doo tuur mbalit ci mbedd. déedéet. doo gaanuwaay ci mbedd. déedéet. doo xeeb nit. déedéet bu mi nga sol tam rafet da nga koy solal nit. dëgg la. li nga am di nga ko bokk nit ñi. di nga xam ne joxoo sa bopp gëm nga yàlla. kenn fi joxe muy sa borom. bu nekkee ci yow nag dañ la koy tàggatal bi nga doonee gone hmm. nga màggaale ko ba wii di ko dootu yomb kon éducation de base la sëy ci tadégeen ci loolu sax laa bëgg ñëwaatu hmm. ci base lan mooy xam sa bopp hmm. déjà xam nga pour man ci sama gis-gis thème bu ñu mësa def ci biir wareef thème bi tënk na lépp parce que lépp loo xamante ne rek mus nañ ko fi andi tadigéen fooguma ne mun nañ ci génnee xam sa bopp mhm. fooguma ne mun nañ ci génnee gëm sa bopp mhm. ak fonk sa bopp dëgg la suñu ñëwee nag ci base lan lan mooy déjà fonk sa bopp ak mhm. gëm sa bopp culture bu nekk nag xëy na ak na muy lan lan ban définition la jox terme yooyu dëgg la mais am na forcément foo xamante ne culture yëpp mënuñ ci ñàkk bañ a retrouvé bu ñu nekkee Sénégal nag mu am ay valeurs yoo xamante ne ci maam yi ak ci mm. li nga xamante ne moom lañu ñu mm. loolu mooy gëm sa bopp mm. mooy xam sa bopp mooy fonk sa bopp suñu nee fulla mm-hmm. wax fayda mm-hmm. wax par exemple li nga xamante ne kàddu mel ngor ak li nga wax léegi sàmm sa kàddu mm-hmm. lu ci mel ni set loolu lépp tataa dëggeen dafa bokk ci fonk sa bopp ñu ñëw nag si paquet bi nga mujjee indi léegi muy euh, euh, ñàkk fonk sa kàddu sa kàddu Euh, xam nga yéen moo tax tata dégg yéen saa di gaaw a wax baaxul. Mm-hmm. parce que papa Ndiaye loo mi ngi koy wax léegi mën nga am yéene. Mm-hmm. mais yàlla rek kay mëttali yéene. Mm-hmm. mais tamit nag ni ko waxee ba léegi rek. am na ci tamit bi. tata dégg li ko coloré yëpp xam nga ko lii na du no comment la. Ah. lii lii tata dégg lii loo siy commenté. wallaahi wallaahi lii ah, lan bala ba jege. xoolal ba ba ba janoo ak marché ba. tata dégg mais xoolal déjà mm. mur bi. liñ ci def yëpp ban auteur la dem ba jël. Mhm. xoolal différence entre peinture bi. Mhm. ak li nga xamante ne xolli nañ ko. pe xam nga ne dafa dégg lii ñaaw na. Mhm, lii ay atu kii la li marché HLM bi la. Ah. te te en général corniche HLM H&M en face juste marché bi nag bind nañ fa ñu nekk marché bi alaaji. bii mooy seen spécialité may naa leen bii. xam nga ce lieu est le vôtre veuillez genre message yooyu. Hmm. seetlu naa ne tata dégg bind nañ ko si mais tata dégg. kenn wala tax koo wax da nga m mu mu mais dañu salte nag. loolu Sénégal Sénégal tata Degene nag dañu salte nag. te kenn du ko wax. te kaay wax la nag ñi salte ñëpp. <laughs> c'est que c'est que Lansana moo war a bàyyi image yi pour ma progresser ci fonk sa kàddu Lansana may bëgg rey ak image am yi say demal c'est que Lansana su ma nee man du ma avancé lii dëkk bi ku ko wax nekk wax kat. kii ma ne la xoolal but lañ koy def gis nga pe alaaji pour yow lan moo peinture mur bi nii giri ah xanaa. waaw li ko rax mooy xam nga ko. Ah. ñi rax set. ah ñi rax set ñoo melal nii miir bi waa allah ji lii waaye yii yëpp yii lii caat rek xam nga gis daal euh, soxna dégg daal ah. waaye yow euh, Sénégal nga defee ni jiite kon euh, neex na déedéet Sénégal kenn mënu koo jiite wala li waa ji waxoon benn dictateur ñëw dictateur fii kenn mënu ko def <laughs> kenn mënu ko def xam nga xam nga dégg li ñu te man soo demee ay Burkina Faso gii rek dem ay Gambie gii rek dem ay dem dem ay Lomé yooyu yaa nga a set a set set set set set alaaji waaw léegi kon déréglé gi te kat sénégalais defe na ni ku mu waxal la gën yëg nga loolu mhm, mhm. bañ nañ ko ba dañu xeeb yeneen yeneen africain yi koo wax ñu wax nañu bàyyi loolu ñooñu raw nañu di dem te kuñ ko waxal nag mu naqadi la alaaji waaw xam nga góor gouvernement dañoo xamul li gouvernement nit ñi ba fii ñu toll. Ah! am na ci kër yoo xam ne yii man dee xaar gouvernement yar leen mbaa ñu def ci ñoom personnalité mbaa ñu def ci ñoom xam sa bopp mbaa bëgg sa bopp ndax nañ seen bopp gouvernement dafa am lu mu tal ak lu mu talul dama ne kawar bu xasee bi jaaw. Mm. bu la neexee ñu la ko waaye fu mu jaat ne dellu fa mu neen. nit ki day am melokaan balaa gouvernement jóg. am na muy bindoo balaa gouvernement soxla éducation de base day am waaw koy bàyyi yaa ngi soog a dikk am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir gouvernement bi du su leen yedd lu ñu leen dénk dañu ko sàmm lu ñu wax ndegam yàlla ànd na ci dañu ko jëf ba kere seen ndomb tànk di jeex kenn du leen jàdd kenn du leen yàpp ci gouvernement bi am na ci mhm. xam nga lu war a loolu dañ koo màggaale dama lay faral di wax ni la tegale saa bu dëngee li ci ëpp la jiitu la mhm. da ci am kilifa ñooñu ñu tooyee kilifa wax ak di wax borom kër ak di wax waajur tànk munte waajal doomam balaa màgg ba fu mu dem mën fa am cër di xam boppam mooy kan des na des na jëla ki ci ligne bi àllaaji allo wa rahmatullah maaleykum salaam waaleykum salaam dama bëggoon bokk si émission bi ñu ngi lay déglu waaw man na ma nekkoon àll lu yàgg yàgg yàgg yàgg ñëw mhm. gis li fi am mhm. donc mu doon lu ma choqué mhm. mais man je pense que yi ñuy wane yëpp image bu nga xam ni la boo seetloo ñi nekk àll ñu si bari ñooy woote parce que daf leen di jaaxal. Mm-hmm. mais Sénégal defar ko yomb na. xoolal Togo gi nii nga xam ne boo boo boo foree xar si mbedd mi sax. na koy jël prise yóbbu jox prisonniers yi benn mm-hmm. xar traîner tu. jërëjëf ñu ngi am problème mu jeunes yi pour ñu liggéey. fii de nag sax day traîner nag. waaw. nag bu traîner ñu yóbbu prison jox prisonniers. ah jox leen ko nawal fii de autoroute à péage nag yi dañuy dee jéggi géej. donc am na lu nga xam ne dafa rafetul boo demee si marché yi fépp buntu kër yi fépp salte gi mel na lu nga xam ne mais yomb na nan wut nan nan na nu amee ay ticket wut ay nit ñu nga xam ne ku nu jàpp ngay def dara ñu gàddu la yóbbu yóbbu police tëj la. waaye boobu dafay fekk guerre jóge fi. bu nu ko defoon une semaine comme ni ñu def marchand ambulant yi rek Sénégal na la normal. Mm, mm. mais li gàcce la si nitu dëkku diine ak lislaam mm. dëkk bu sell na ngay gis ku ku ku tur ndox si mbedd mi. wëlbatiku lal sa jaada di julli. Hmm. lii daal lu jar président de la république ñu koy demandé. bàyyiwuñu sax muru jàkka yi mu def mu def effort mu yokk effort am. Hmm. dimbali ñu si salte gi ndax lii lii moom mënul wérloo nit. Hmm. loolu laa amoon di ko yokk si émission bi te di kontaan seen émission di leen ñaanal yàlla. seen émission bi yàgg ngeen am ndam. ndeysaan. yàlla na leen ko yàlla defal. defal ko mbooloo mi julli ndax yéen ay exemple ngeen si société bi. ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ak di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf Alaaji xam nga lan moo mën a xadi ci li mu wax. te muy dëgg gu wér peng. nee na lu ci ëpp ci ñuy oote bitim réew la ñuy oote ay sénégalais yu bitim réew ndax lii choqué na la kon dafa mel ni ñun ñii ne ci réew mi lii choqué maanaam dañ dem ba dañ dafa bokk ci ñun dafa bokk ci ñun ñàkk suñu bokk geeg yooyu dafa nekk suñu habitude dafa mel ni dafa dugg suñu mm-hmm. deret ñu ñu perfuser ñu ko ba ñu trouvé ko normal xam nga loolu c'est choquant c'est choquant te soo seetloo Tata Déguène li mu wax dëgg la de gis nga ku fi ñu ne bitim réew nga koy woote kenn dégagé wu kenn ci réew mais Tata Déguène fépp la mm. même si sa biir famille da ngay gis ne ku ci dem bitim réew benn six mois te mës ta dugg avion sax bu ñibbisee bu gisaatee yenn yi dafay choqué parce que daf koy gëj a gis fii na Tata Déguène looy gis chaque jour di ko dund chaque jour. mais man Seye dama d'accord ne suuf yi ma lay wax. soo demee Touba gi rek Sénégal gi rek feneen suuf yi dañ koy lay. mais instant bi Sénégal foofu la ñu toll Tata Déguène doo xëy suba ba ngoon jot te gisuloo mbalit munuloo xëy suba ba ngoon jot romb ci mbedd bi te gisoo ko jéggi autoroute bi noonu munoo xëy suba ba ngoon jot te gisoo ko tuur ndox si mbedd bi ci ñun la bokk dañ alo nangu allô oui allô bonjour euh, c'est Etienne Diop euh, vous écoutons donc voilà je vous appelle depuis la Suisse mm-hmm. euh, je voulais participer à votre émission donc sur le civisme donc s'il peut euh, s'exprimer en wolof est-ce que vous pouvez vous exprimer en wolof parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui comprennent pas français d'accord désolé mm. donc voilà euh, si émission Fonk sa bopp laa bëggoon wax laa bëggoon wax sama xalaat donc euh, man dama yaakaar ne Sénégal <coughs> waru war waruñu waruñu wan population bi quand même que ne il y a pas de solution s'il y a des solutions parce que bu ñu demee ci yeneen réew tu vois bien que y a des am na ay il y a des choses qui sont mises en place donc c'est-à-dire ay lois yu ñu mettre en place. Mhm. le gouvernement bi il a investi là-dedans donc mu engagé ay policier et puis les gens sortent et puis voilà ils font leur travail je veux dire par là li ma bëgg wax mooy maanaam exemple bi may joxe mooy exemple Rwanda. Mhm. le Rwanda parce que dama xam ne Sénégal. chaque fois boo joxee exemple tubaab rek ñu naan waaw tubaab yi dañoo am xaalis meluñu meluñu comme ñun. Mhm. moo tax exemple Rwanda laay joxe. Mhm. donc euh, donc ah, j'ai benn émission euh, sur France 24 donc euh, sur le Rwanda. Mhm. qui montrait Kigali ville propre Kigali c'est la c'est la capitale hein, du Rwanda. donc actuellement au Rwanda n'importe qui bu demee Rwanda tey boo eggee aéroport bi il, il contrôle tout de suite bu ñu gisee ne yor na sac plastique il le récupère et puis les mettre tout de suite à la poubelle. Donc, l'eau, c'est quoi C'est l'État qui a décidé et c'est l'État qui a mis en place, l'État du moins, mon, mon, celui qui a mis en place tout ce système, c'est-à-dire, voilà, engager les moyens nécessaires, nous mettre en place un personnel nécessaire pour justement nous mener, euh, nous mener, loi du mener, qui puisse appliquer la loi, je veux dire, concrètement. Mm -hmm. Sénégal, l'eau, le moins faut manquer, c'est-à-dire, Euh, on, on, peut, on met des choses, mais sur le terrain, il n'y a pas, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire, euh, il faut, par exemple, pour faire respecter les lois ci ci maanaam ci tali yi ak autoroute yeeg yooyu. Mhm. boo demee ci yeneen réew yi réew yi nga xam ne ñoo ñoo gën a avancé autoroute yi dafa am ay ay ay policiers yu koy contrôler mhm. donc on appelle ça les policiers de l'autoroute donc ñun ils sont formés pour ça c'est-à-dire que ñu gis ngay taxawaalu wala ngay jaar ci ci autoroute dañoo jàpp et puis yoon tegu sa kaw c' est que quand quand la loi s'applique elle doit s'appliquer jusqu'au bout maanaam bu ñu jàppee nit mu jéem a traversé kii euh, comment s'appelle autoroute bi dañ ko war a teg ay daan et tou sa s'il y a pas de contrôle ñu engagé ay policiers ñu nekk sur place sur le terrain pour contrôler ça bah voilà loi bi du am sens quoi je mm. pense que c'est c'est ça qu'il faut vraiment réfléchir quoi loolu moo tax mënuñu appliquer loi loi au niveau de la propreté pour que ça soit efficace mhm. donc pour que vraiment ñu efficace faut vraiment que état bi engager le moyens c'est-à-dire engager personnel nécessaire sur le terrain dëgg la le les ki qui ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ñu ñu def lu teguwul ci yoon ñu appliquer loi bi appliquer loi bi sans état d'âme exactement mm. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, ça s'appelle quoi Ça s'appelle la rigueur. maanaam liggéey boo koy def da nga koy def jusqu'au bout. Mm-hmm. mais pas faire les choses à moitié. et et ça c'est de la négligence faire les choses comme ça à moitié et loolu mooy andi lan mooy andi l'anarchie l'anarchie c'est quoi mooy li ngeen gis li ngeen di wane sànq là sur l'autoroute gars yi di nit ñi di jaar di traverser autoroute tout ça et ça c'est dangereux non seulement loolu c'est dangereux pour ñoom mais c'est dangereux aussi pour. les gens qui conduisent parce que ça peut provoquer des accidents et ça peut mën na juste une personne qui traverse parce que l'autoroute selon la, la vitesse qui est, qui est exigée ça roule tellement vite que la personne n'a pas le temps de freiner donc su freiner ça peut provoquer des accidents derrière les gens qui sont derrière ils n'ont pas le temps de de pouvoir éviter l'autre et puis euh, voilà ngi nuyu waa Suisse yëpp ñu ngi leen di sargal xam nga sëy li gën a dommage mm-hmm. mooy nee naa dañ ko dem ba banaliser ko sénégalais ñàkk na fonk boppam ñàkk fomp fonk boppam goo xam ne mm-hmm. ak ñi ñu ko sañ a wax ba alaaji lépp dañ koo banaliser xam nga lu banaliser lii nii hmm. image yi ñuy gis. du dara soo gisee li ndaw si waxoon ne ay waa bitim réew ñooy woote dañu dem ba banaliser ko. choqué kenn nga gis ci autoroute bu kuy jéggi choqué tul kenn ngay gis kenn koo xam ne day gaanuwaay ci ci mbedd bi choqué kenn kenn koo xam ne day dem ba buntu benn jumaa di fa gaanuwaay alaaji choqué tul kenn ba nga dem ci hôpitaux yi gis mu salte choqueetul kenn ji ngay dem ci cimetière yi gis ñuy violer ay sépulture di tijjeeg di uti ay ga ŋaamu néew ki ak di uti ay tànku néew xam nga dañ dem ba nga xamante ni système bi ci jëm boppam moo dem ba mel ni dafa baisser les bras te lu lu yéeme la alaaji lu yéeme lu yéeme jël ko ci ligne bi allo oui allo allo oui allo euh, salaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam euh, yow lañuy ñuy déglu waaw kooka euh, la Zeyna. waaw man la. waaw dama bëggoon participer tuuti ci émission bi quoi. yow rek la ñuy déglu ku baax. waaw man moom extérieur laa nekk quoi. Mm-hmm. waaw c'est-à-dire que li ngeen di wax noonu yëpp en fait y a un fond problème bi du question nit ñi fonkuñu seen bopp wala affaire yooyu. Mm-hmm. problème bi mooy que ne. am na am na affaire yoo xam ne ne peut-être que nit ñi ñoo koy defal seen bopp mais am na affaire yoo xam ne ne état bi moo ci war a teg loo xam. Mhm. parce que nit ki soo nee toujours état état état mënul lijjanti lépp. Mhm. waaw man je pense que ne nit ki sa kër nga war a régler ba pare. Mhm. balaa ngay génn ci biti. parce que su fekkee ne nit ki fonk na boppam fonk na sa kër régler nga ko boo pare boo génnee ci biti ni ngay comporté woo sa biir kër noonu ngay comporté woo ci biti. Mm-hmm. mais su fekkee ne yow fonkoo sa kër waaye sa kër tamit yaa ngi def n'importe quoi soo génnee si biti tamit da ngay def n'importe quoi rek mm-hmm. mooy comme ni ñuy gisee xale yi nga xam ne dañ leen di yar bu ñu génnee xam nañ ni ñuy comporté woo mm-hmm. mais nit ki su fekkee yaruwul këram day def n'importe quoi këram bu génnee tamit noonu lay def parce que loolu lañ ko yaree amul mag amul ndaw yar dafa baax rek muy mag muy ndaw ñëpp ñoo war a yaru waaw yeneen tamit daa ngi ci yoo xam ne peut-être bokku ci émission wala affaire mais ñun ñu ngi koy seetaan fii ñun ñu ngi Europe mais dañ koy seetaan chaque mm-hmm. dañuy naan Sénégal réew jullit la ak affaire yooyu mais li ñuy gis nii ci télé yi wala ci internet yi loolu jaaduwul. Mm-hmm. parce que rafetul. wala ki ak dooma ci ñun ñu baax ñi nga xam ne ñu ngi tëdd foofu loolu baaxul. kontaan parce que gis gis naa fi ñoo xam ne ne. vraiment mooy loolu parce que man moom rus naa sax yenn saa yi di naan man sénégalais laa. Hmm. waaw. dëgg la parce que li nga xam ne ne mooy mooy daw suñu réew loolu mag ñu baax ñi war nañ ci jóg du état bi kese mag ñu baax ñi ñu ngi fii di wax ci télé yi chaque jour ñu gis ay conférence ak yooyu mais même conférence yi jaarul yoon da ngay gis ay conférence ñoo xam ne ne ñii du duñu dañuy dañuy mees. di def lépp di di teg seen bopp ñuy taxaw ci bunt ci si si kanamu sëriñ ñuy wax ñu naan ñuy déglu yàlla te ñoom defuñu li yàlla wax. donc loolu loolu man gisuma si benn kii man bu doon man maay sëriñ bu may conférence su fekkee ne gis naa loo xam ne lii yàlla daf ko bañ déjà du ma nangu sax def conférence parce que kii dem kii dem conférence xam na lu tax muy dem foofu yàlla lañ fay def lii yàlla tere ñu bàyyi ko lii yàlla digal ñu ñu def ko mais boo demee ngay def n'importe quoi ngay comporté wu n'importe comment wala sa habillage wala affaire yooyu loolu xam nga ne dèjà yàlla buggul loolu kon loolu dèjà sëriñ bi waru koo nangu yéen nag bon jërëjëf parce que yéen yéen a ñuy yee si lu bëri te yenn ay tax tamit ñuy ñuy gis lii passé suñu réew yépp hmm. waaw Zeyna moom maa ngi koy remercier bu baax. jërëjëf jëf <laughs> yow tamit euh, taa dégg yow tamit ñu ngi lay gërëm di la sant. kontaan naa ñu ngi leen di sargal. damay ñaan yàlla rek vraiment yàlla jàppale leen. allahuma amin amin ya rabbal alamin. waaw maa ngi nuyu tamit. Euh, suñu kilifa ji tamit. ndeysaan. maa ngi koy nuyu bu baax moom kontaan nañ ci moom quoi. <laughs> merci jërëjëf ku baax. <laughs> waaw waaw moom moom ñoo far quoi. ah ñoo far. <laughs> dëgg la waaw waa kay ba beneen incha allah laaj. waaw xam nga dafa dikk ci li dama ne. Mm. gouvernement kenn baytal boppam. Mm. te gouvernement yàggul. Mm-hmm. dafa xale bi dafa am wax bu am solo bum mu wax. Mm. soxna Diggan. moom ci néeg la dugg de. loi. ci kër la war a jëkke balaa génn. waaw loolu dafa am yoo xam ni dafa am yoo xam ni ñi. dañuy indi rek euh, xam nga gouvernement rek a sonn. Mm-hmm. te ba ni tukki fu mu jaar di sonn. Mm-hmm. Mm-hmm. te léeg ñu tooñ ko léeg la ñu tuumaal ko. dafa am yoo xam ne dëgg mm. euh, bi nga ko waree def gouvernement xewul. dëgg la da ngay former sa gouvernement bopp. jubal sa gouvernement bopp mooy sa njabootu bopp. gouvernement soo koy xew. dëgg la la xale bi daf ni da am loo xam ne da koy génne ci biir kër gi. Mm. yóbbu ko ci biir mbedd mi. Mm. Euh, da nga koo nàmp taxamti ko ba mu ah, seey nga xëy boo génne ci mbir mi di su la mën a nàmp éducation de base mooy loolu éducation de base euh, gouvernement li li wàllam mhm. mooy euh, xam réew mi waaye du la xew ci réew mi gouvernement mën koo dindi mhm. ndax xam réew mi ak jëfat réew mi mhm. ak na jëf ci biir kër gi bokkul bokkuñu gouvernement du yar kenn njabootam njaboot gi danga leen di yàq ba xamuñu seen bopp xamuñu ñooy kan ñu génn gouvernement bi yaral leen waaye dafa am loo xay ci biir kër gi la war a jógee mm, mm. gis nga bu amee doom mm. bu jëkk laa wax nag bu jëkk boo amee doom da ko daan kaste bu du am porte bu mu war a génn ba def loolu noonu dëgg la da ngay dugal ci moom loo xam ne lii moom lay màggaale dëgg la ba bu màggee mm-hmm. yi nga yëpp daje ci moom dëgg la ndax nag am na xale yoo xam ni. jikkoy mag lañ yor am na ñoo xam ne bu ñu jëfee nga xeeb. bu ñu defee nga xeeb bu ñu waxee nga jéppi leen. xoolal allah ji jamono ji ngay wax ñu ngi wane Rwanda. li ñuy wax sànq Rwanda ni mu setee. Ah. ville propre gis nga li ñuy exemple Rwanda ville propre. wa allah ji man kañ la ñuy wax Sénégal ah xanaa xanaa suñu waxee exemple Rwanda ville propre ñu wax euh, exemple Sénégal ville sale. waaw Sénégal fu mu neexul a dégg nag. wax dëgg yàlla neexul a dégg waaye allah ji xoolal lii. xoolal lii ci sa Afrique gii la xoolal lii. xoolal yëpp le réglé xoolal ji lii. léegi yow da nga gis ay africain yoo xamante ne ne suñ ñëwee Sénégal sax dañ ñuy xeeb alaaji aéroport dinañ la agressé gaar ba ñu agressé la ah comportement nit ñi ñoo yaruwul. ku ci nekk yaa ngi jéem a def banditisme ki façon boo xamante ne yow touriste bi ci jëm boppam yaa njëkk tiit ci li am ci réew mi te ngay doon nit nit ku ñuul pour commencer te nee nañu ku wax lépp lépp lépp lépp nekk waxkat xam nga dafa ci am yenn yoo xamante ne Alaaji lii dañu koy wane du Suisse du Genève du du du France du fenn fii la ci réew mi Alaaji commentaire li wala sey ngeen commentaire ko Rwanda ville propre Tata Déguène xoolal image rek lii ku la wax Afrique la Tata Déguène déjà tu as des problème pour que nga gëm ko. Hmm. parce que dëkk bi mi ngi nii set xoolal xoolal pépp suuf sax. ñu ciy remercier mbarke bu baax Mbarka moo ñu indil image yi suñu journaliste bu mag bi ah. alaaj gis nga Tata Déguène ah. man gouvernement sax laa dul wax. Ah. tu sais pourquoi. Ah. li may reprocher gouvernement xam nga lan la. Hmm. rigueur. Hmm. kese. ak tamit laaj ma lan nag. laaj ma lan alaaji ñu tàggoo gis nga bu njëkk ba. Uh-huh. ba ñuy gën a nekk xale uh-huh. siyaas moo amoon alaaji te du mm-hmm. siyaas ah ala xam da nga boobu moom oto mbalit day jaar chaque fraction de seconde malade du taxaw ci. Mm-hmm. yéen saa léegi da ngay maa ngi ciy rendre hommage ndeysaan benn vieux Diop xaw lan boo xam ne moo doon nekk point e tamit mais dama la bëgg wax boobu oto mbalit siyaas. Mm-hmm. dañu ko réglé woon allah ji foo tourné oto mbalit boobu mbalit mbalit du nekk ci dëkk bi de. Ah. kon li tax tout le temps mbalit di nekk problème. loolu tamit mm-hmm. problème la boo xamante ne gouvernement moo ko mën a réglé. c'est que te tamit li ñu wax ni foo gis. dinañ fa teg ay poubelle yu mag bopp koñ bu ne ku am sa mbalit teg ko ba mu baax dem sotti ko fa suñ ñëwee jël jël poubelle boobu xam nga loolu tamit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wax ci gouvernement bi waaye am na responsabilité boo xam ne gouvernement bi la ah, ah, alaaji ko lépp nekk wax kat zey tàggul tàggul tàggul ñi la abiyel dugal benn affaire gis nga tata mm. dëgg nag ah, mm. sénégalais ci boppam mm. defaral ko tam dafa jafe benn exemple bu ndaw rek laa joxe ban jardin publique nga gisati mu baax non pour toppatoo bi te tata dëggan sénégalais yi amuñu kon ñu wax ko rek parce que lépp lu ñu leen defal rek sérieusement dinañ ko naax saayal dinañ ko yàq kenn ku ci nekk sa intérêt personnel ngay gis sa bien personnel ngay sàmm li nga xamante ne yàgg mbedd mi yéen a ko bokk moom wax dëgg yàlla. waaw kañ la ñu mel ni Rwanda man génnuma Afrique. ah taa dégg ngeen 10 ans ci kanam. Burkina bii gii rek Gambie gii rek. yoo taa dégg loolu des na. Mm. loolu ci cet gi. noo des na. Mm. éducation. ci le sanitaire ak morale. Mm. la ñuy commencé waat. ci respecté sa bopp respecté sa bopp ca jardin respecté tali bi. xale yooyu màggaale ko. Ah? jëm ak moom ba keroog ñuy doon ay majeur. te moo ne de case de tout loolu kese taa diggéen loolu donc man de amatuñu ci yaakaar léegi. balaa ñuy nekk wax kat. waaw xam nga. Euh, ndax ku wax lépp nekk. pare kon ma tàggu xanaa tàggu ñu doon seetaan rek di remercier bu baax na complex Sophia coiffure ci coiffure bu rafet bi di remercier tamit euh, Jules Création sopp da baax nekk Géejawaay Corniche. Euh, Euh, téléphone bi di 77 924 31 68. 77 924 31 68 di tàggu téléspectateur yëpp di leen jox rendez-vous. ci biir damay tàggu rek soxna Aminata Tall na doom. <laughs> waaw ca Zurich. je suis yàlla na ko yàlla defal jàmm bu baax kooku moom mention spéciale. mu dem xam na boppam. waaw sama xaritu xol euh, di ci boo teg nag Ndeye Maguette Dieye député assemblée nationale ak Adjaratou Niagne Touré. ak ki xam ne ci tubaarkàlla mooy Adjaratou Anta Niang. moom Saliou Ndione di gërëm nag bu baax a baax euh, maam Fili mu Ousmane Tanor ak na ki nga xam ne ki mooy madame Papa Diop ndeysaan docteur waaw sama xarit Ndeye Marie Diallo waaw sama doom baay ak Adja ak Adja seen yaay Adjaratou Fattaay tam mooy euh, ki nga xam ne kii mooy Ndeye Teneng Ndoye madame Cissé mhm. ak margo Camara di madame Cissé moom itam euh, di ñaan bu yaax nag soxna Awa Gaye soxna Assou Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall ak Khalifa Fall sëñ Fallou Galas Mbacke maa du faat nag soxna Assou Fall mi nekk ca France dëgg la dëggan ndax moo nu préparé tubaarkàlla ak ajaratu gàdduloo mu xam ni tubaarkàlla gën a couturière Yacine gàdduloo Yacine gàdduloo ak ajaratu Sénébaloo Sénébaloo madame defal ko jàmm baax a baax euh, a ah. baax di siyaare ñëpp nag waaye rawante nag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 xam nga lu tax dañ laa teral sa New York teral ma ndax ku ma teral yow la teral c'est normal waaw kon waa Brooklyn ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a ah, baax ñoom Ami Badji Alaaji Ñaaña Jóob Touré ñu ngi leen di sargal Tabara Gueye Massar xadi euh, euh, bu Maguette euh, Maguette moom madam taala mbay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Maguette Dieng ji di sargal fatabakalla macha allah tamit waa New York waa New Jersey su fi méng sama rakk ji madame Sarr ñu ngi koy sargal alaaji waa New nee naa ñu baax ñooñu alaaji bàcc ñaa excellence ki ne maar wax naa ko démb waaye tamit ji ñuy bàyyi xel bu baax a baax Alain Jigal moom tamit nga xam ne journaliste bu mag la foofu ñu ngi koy sargal El Hadj Ndaw mi nga xamante ne tamit rajo la fa fa yore ñoom ñëpp invité ma fa fa tabakalla macha allah alaaji nii laa koy jàppee di ko benn bennal di ko benn bennal rek fa tabakalla ki nga xam ne moom moom sa fans la alaaji maa ngi koy sargal bu baax démb ami baaji daf ma ni nuyul ma alaaji maa bëgg alaaji maa ngi koy sargal bu baax nag. wallaay wallaay wallaay ndeysaan yàlla léppam yokk wallaay wallaay ndeysaan ah ñoom Fambaw ñoom ñëpp nii laa koy jàppee dinaa bind lettre Ayda Jaxate ma ko jëkk a wax wallaay alaaji ajaratu Ayda Jaxate grand ma Dabar wallaay wallaay Dabar solution yàlla defal jàmm wallaay Daouda Sarr ñu koy sangal bëgg TFM bu baax a baax laa sana foog may def lii ci semaine bi foog ma remplacer Alaaji ndax ah, Alaaji ah, kala teral la moom ah, wallaay wallaay ndeysaan jobbe Jóob nee jobbe teranga Alaaji Fatuma Kalla macha allah ku lim juum Linguère Amidia wax naa ko fatabakalla macha allah waaye mention spéciale Fa Mbow nii laa koy jàppee rek ndax tamit fatabakalla macha allah daal li duuf ñoo gaaw nga gaaw rek ah waaw ñoo gaaw ma gaaw alaaji <laughs> bëgg TFM bëgg télévision Futur Média fatabakalla macha allah waaye ki limu ki ki luwe woon limousine bi Rama Diallo madame la kooku tamit beneen affaire la Alaaji ay Faris nee nañ soo ñëwul dinañ ñëw ci Sénégal bi defanteeg yow lu baax ndax ñoo la bëggal seen bopp Alaaji macha allah di remercier nag la Sophie ndax li yëpp moom moom moo ko habillé Alaaji di ko sargal bu baax a baax la Sophie Ndiaye waa bu Pikine macha allah macha allah xam nga nii rek ñoom ñun ak yéen beneen affaire la macha allah di leen jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla ci beneen émission wareef alaaji suba di leen wax programme wareef bu bees bi ñu bëgg def ndax wareef dañu bëgg alxames bu jot ñu dem ci benn gox hmm. alxames bu jot ñu dem ci benn région déggoo lii de noonu la ñuy def dafa mel ni nag ci kàttanu yàlla am na fu ñuy tàmbale waaye suba daal naa leen wax programme bi ci kàttanu yàlla loolu nag ñu ciy gërëm bu baax a baax maam Dorine Gueye ñambeeg ba xaasim ak Seynabou Joséphine waaye tamit Njaga Ndour kenn du njaganóor moom tamit ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak soxnaam Kumba Sow jërëjëf